bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi muizzi alxaqi wa rafi'ih wa mudilli albatili wa waadi'ih wassalatu wassalamu ala sayidi alawalina wa imami almursalin sayidina wa xabibina wa shafiina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira mbokk yi ñu dellu si waat ci sunu jotaayu majalis jotaayu daara assalafu ma alquran magi démb nan la ñu daan dundee ak alquranul karim ñu yàgg di ko amee di ko teewloo ci kër gi nga xam ne moom mooy baytul qur'ani fi Sénégal muy la maison du Coran au Sénégal yéen ñëpp yéen a ko bokk képp koo xamante ne yaa ngi dund alquranul karim yal na yàlla boole ñu ci ñooñ alquranul karim fii ci àdduna ak ëllëg ca yowm alqiyaama yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg aljanna insha allahu taala ñu ànd weyaat dund mag ñi suñu déggaan alquranul karim ña ban jeexital lay def ci ñoom ba ñun ñu jànge ci ñoom saa yu ñu déggee alquranul karim am leneen loo xamante ne moom lay def ci ñun ki nga xam ne moom moo di yazid arraqashi rahimahu rabbi ida moom dafa am benn mu ne ida kaana yowma alqiyamati naada munaad nee na yowma alqiyama parce que yazid yaakaar na min nañu ko bu baax a baax moom nekkoon na mu nekkoon di nettali waaye nekkoon koo xam ne zahid dëddu adduna lool bari woon xam lool nekkoon aabid jaamu kotu yàlla buur bi subhanahu wa taala benn bés dafa toog mu ne ndonga yowmal qiyaam dañuy jékki-jékki dégg ab nit ku woote naa daa munaadin am wootekat boo xamante ne dafa woote mu ne ayatuha naaru lmutia yow safara bii nga xamante ne doo mooy sa borom mukk lu la yàlla digal moom ngay def sammi ahlak safara tuddal ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a dugg ci yow tuddal liste bi nga xamante ne moom nga jot qaal fa yaxruju unuqun min annaar ci saa si am benn loos baat bu gudd boo xam ne dafay génnee ci sawara si daa di ñëw tomb kanam yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a dugg safara yëpp mu daal di tomb seen xar kanam yi ba mu ko tombee ñoom ñëpp ñu daal di jaaxle ñu nekk di ko jiiñante ci seen biir nee ne thumma yunaadi munaadin ñu daal di dégg aw baat buy wax naan wamtaazul yawma ayyuha almujrimuun ca suurate yaasiin ràññeeku leen beru leen tey yéen ñi nga xam ne yéenay kàccoor yi defkatu lu ñaaw yi tey la leen yàlla ëb doon xaar laa ilaha illa allah wamtaazul yawma ayyuha almujrimuun ràññeeku leen yéen ñi nga xamante ne yéenay defkatu lu ñaaw yu ñaaw yi ba nga xamante ne yegg na fii nee nga gis leen ñoom ñëpp ku ci nekk di xool sa moroom di yedd sa moroom baat bi waxat leen ne haada ma kuntum taksiboon lii ngeen doon fàggu ca àdduna la ngeen doon jëf ñàkk julli ba bu bari bu bari bu bari mooy ci riba haada ngeen doon def ci àdduna mu ngi ni tey nee na summa yunaadi munaad am wootekat bu woote fa ñu nekk foofu di ko jiiñante mu ne leen udxulu abwaaba jahannama xaalidina fiha fa bisa mathwa almutakabirin dama ne udxulu abwaaba jahannam dugguleen ci buntu buntu jahannam yi dugguleen sawara tabbileen ci kambi sawara yi xaalidina fiha la ca gën a métti mooy dañuy sax ca sa sawara sax leen fa foofu ngeen di des du ngeen mos a génni laa ilaha illallah mu ne fa bi sa ñaaw na mathwal mutakabirin li nga xam ne mooy delluwaayu mujjug ñi nga xam ne ñoo doon rëy rëylu ci àdduna ba mu yegge fi nee na nga gis ñu daal di leen jël daal di leen juutal walbati leen fa yunkasuuna fi nnaari ala ruusihim ñu daal di leen juutal jël seen bopp yi tàbbil ko ca sa sawara nee na wa yusharu alxamimu fi ajwaafihim ñu daal di jël ndoxu tàng bu safara bi daal di koy sotti ca seen gémmiñ ya thumma saqata yazidu maghshiyan alayhi yazid ba muy nettali ba yegg fi mu daal di daanu xam hakada salaf kaanu yadkuruna al wa hum yabkuun muy nettali alquran daal daanu xam mbokk yi jot na jot na jot na ñu xool nu ñuy dégloo alquran alquran bii nañ ko xoolewaat yeneen i bët nañ ko dégloowaatee yeneeni nopp déglu tadabbur déglu ittiaat waaru ci alquran déglu ictibaar nii la mag ñi daan dégloo alquranul karim benn bés benn jàngkat dafa jàng ci wetu ki nga xam ne mooy Malik bun Dinar rahimahullah jàngkat bi daal di ñëw commencé jàng ne audu billahi min alshaytani arrajim bismillahi arrahmani arrahim ida zulzilati al ardu zilzalaha wa axrajatil ardu athqaalaha fa jaala maaliku yantafid maalik commencé di lox nga gis ko muy lox commencé di jooy wa ahlul majlisi yabkuuna wa yasruxuun waa ji ne ida zulzilatil ardu zilzaalaha ña toogoon ca jotaay ba yëpp commencé di jooy di yuuxu lool di yuuxu ca kaw ngir lan ida zulzilatil ardu zilzaalaha wa axrajatil ardu athqaalaha wa qaala al insaanu maa laha yàlla nee na ida zulzilatil ardu zilzalaha saa yu ñu yëngalee suuf si yëngu ga nga xam ne mooy aduna suy tukki wa axrajatil ardu athqalaha lu nekkoon ci suuf si suuf si daal di koy génnee ca or ak lépp même ni ñu suuloon ci suuf si wa qaala al insaanu maa laha nit ñi yenu seen loxo yi naan lu dal suuf si lu ko jàpp yawma idin tuhaddithu axbaaraha ba mu yeggee ci ne fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara yàlla nee ne bu yowmal qiyaamee lu waay defoon ak lu mu tuuti tuuti ci lu baax di nga ko fekk ci kanamu yàlla buur bi subhanahu wa taala ba mu yeggee foofu fa jaala maaliku yabki wa yashhaq yabki wa yashhaq ba mu yeggee foofu malik di jooy malik bun dinaar rahimahullah muy yuuxu di yuuxu di yuuxu xatta xushiya alayhi ba mu daanu xëm لا حول ولا قوة إلا هكذا كانوا يسمعون القرآن هكذا كانوا ينصتون للقرآن هكذا كانوا يستمعون ويتدبرون إلى كتاب الله سبحانه وتعالى nii la ñu doon dundee ñoom asalafu saalix mag ñu baax ñi nii lañ daan déglu alquranu karim malik bun dinaar min ngeen turam lool ci jotaayu xam-xam mu daal di daanu xëm fa xumila min bayni alqawmi saria ñu daal di ko yëkkati yóbbu ko këram fekk dafa xam ngir alquranul karim kon mbokk yi namaasij yi bari na lool yi nekk ay nettali yoo xam ne yu wér la ci téere soo ci delloo ñi yëngu ci xam-xam xam nañu lii may wax mag ñi nii lañ daan dégloo alquran kon kiy déglu alquran bu mu ko déglu ngir ne dégluwul musique rek kay ma jàngal leen benn façon déglu alquran léeg leen déglu alquran ngir ne da ngeen a jël décision déglu alquran maanaam bari na ci ñun ñoo xam ne guddeeg bëccëg ñu ngi déglu alquran waaye bàyyiwuñ ci xel léeg-léeg toogal nga tëju nga ne damaa tëju pour déglu alquran mathalan nga tëju taal kaamilu xusari murattal wala mujawad wala keneen ki nga xamante ne ci jàngkat yi nga ne da ngaa tëju uniquement nga koy déglu defoo dara parce que ñu bari ci ñun danuy déglu fekk ñu ngi liggéey loolu yëpp baax na da ngay am tuyaaba di al alquran ñu ngi dawal seen oto di déglu waaye tëju uniquement di déglu alquran soo xoosee xoolee iqra alayya yonent bi ba muy woo Abdullah ibn Mas'ud ne ko kaay jàng ma déglu yonent bi dafa doon déglu ngir ne déglu rek lay def ñii suñ daan déglu alquran duñ ko booleeg lenn loolu kum daanul def loolu ci yéen maa ngi la koy ñaan essayer ko méditation bi ci alquran yëpp foofu la neexaay bi ci déglu soo bëggee yegg ci borom yi anta ci borom bi subhanahu wa taala ci fekk yaa ngi déglu alquran déglul te fekk yow déglu rek nga jublu ca maanaam balaa ngay tëdd balaa ngay tëdd bés bu nekk jëlal fukki minutes yoo xam ne fukki simili yoo xam ne da da nga ciy déglu alquran rek nga de tekk jël jàngkat boo xam ne mutqin qaari'un mutqin jàngkat boo xam ne moom daf lay yegg fu sori nga déglu ko fukki minutes rek nga xool di ngeen commencé sentiraat leneen ci alquran di ngeen xam ne alquran kenn du ko comparé ak lenn kon loolu yaakaar na ab mbind la yoo xam ne ku ko essayé di ci gis lu baree bari ما كان من ثواب فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته